waaw mais rapport yi rapport dafa war lu public dañ ko war a ñëpp jot si parce que moomeelu askan wi la te ñun dañu am chance que ñaar ñu nekk ci kaw muy le président Diomaye fay et le premier ministre Ousmane Sonko c' est des inspecteurs des des, des impôts domaines. Mm-hmm. donc ñooñu quand même wàllum suuf wàllum fiscalité réeru duñ ko réere donc mal mal malheureusement pour le régime passé que ñi ñi fi ne moom affaire yi mu ne maintenant nag il est temps que ñu ñun askan Sénégal moo ñu ñor ñoo ñu fi teg. Mm-hmm. donc il est temps ñu informer askanu Sénégal wax leen ñii lii lañ fi def lii lañ fi fekk maintenant ñun nag ñun fii lañ leen jëmee ak suñu projet. transparence moo ko lal nee nga sànq nekku pour def ay chasse aux sorcières. Hmm. Euh, taxu leen a jóg mais transparence rek moom moo ko lal. tout à fait parce que ci transparence lañ mën a defee lépp askan suñu xamee li xew rek jiite leen dina yomb. Hmm. problème bi mooy nébuleuse yi am. naan affaire de homme d'état ay secret d'état yooyu foo ko dégg waaw yooyu moom je pense que en Afrique ay caaxaan la je donne toujours dans l'exemple des pays scandinaves Norvège Danemark foofu Euh, le gouvernement informe à temps réel ministre bi mën nga xam ñaata lay fayee ko. Mhm. yan mooy privilège yi ñu ko jox te loolu aussi ñun ñoo ne jox leen ñu ñu defar donc il est temps que ñun ñi ñun ñuy jox ñuy jiite. war nañu wan ne ñun fii la ñuy teg suñu tànk dans la plus grande transparence mhm. parce amee nébuleuse rek ça veut dire que fu ñu jëmee askan wi euh, baaxul ah. la preuve mooy rapport yi bi ñu génnee ñëpp a dar seen gémmiñ ne ah ndeke lii nii la demee waa ndeke lii amoon na fi